tawat yàlla ni yàlla saafara ñi koy sooxaale yàlla seen ko ci seen yaram ñii liggéey yàlla barkeel seen liggéey ñi toll ci liggéey yàlla jox leen liggéey yu jàng yàlla mottali seen jàng lañ cey séntu yàlla defal leen ci lu kaw seen jot mu dimbali leen ci seen diine ak seen àdduna yàlla yàlla jubal ni njiit ñi nga xam ne jiite nañu àdduna ñoo jiite penc mi ak jiite diine ji yàlla yàlla def ci ñoom maanu jóg ak ragal yàlla ma de ci askan wi ñu ànd ngir jariñ askan wi bañ a kompaloo ngir di jariñoo askan wi yàlla na yàlla eh, yërëmandi suñu way dawlu suñu way jur yi sunu mbokk yi ak wëlër yi jiitu ak bokk jullit yépp yàlla yéegaleen ca barsax sidna muhammad seen bàmmeel yàlla doon xarukaay ajana te yaa allahuma la tahrimna ajrahum wala taftina baadahum yàlla na yàlla sàmmal ñu sunu diine sàmmal ñu suñu ngor sàmmal ñu suñu mbokk yàlla bu ma xajam adduna yàlla bu Euh, mbokk yi ñuy euh, waxtaan ci benn thème bu am solo mooy seytaane euh, dama seetlu ni seytaane galgal nañu waaw daf ñu galgal galgal bu rëy booy xeex ak mbon na te ki ngay xeexal yow am na ku jàpp sa tànk boo sàggatul xeex bi sa doole dina wàññi te foofu lañu ñu toll léegi nag tollatul fu ñuy def constat mais dañu war a toog nag seet solution euh, xam nga cheytaane yàlla daf ñu teel a wax ni inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan illa man dafa wax cheytaane ne ko ñi ñëw ci man laqatu mënoo ci ñoom dara ñi ngay ma ñi mooy ñu topp seen bakkan yàlla dafa wax loolu leer donc mu ko wax nañu solution boobu bi ci des mu ni yàlla wax ni wax ni walaysa lahu sultaanu ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun nee na mu ni cheytaane moom li muy bari pexe pexe yépp yëggul ci ñi ma gëm te muy dëgg ci ñoom te bu ñu jaaxlee làqu sama ginnaaw waaw moo tax mu ne la sax booy ba nga jàng alquran isa qarata alquran fastaiz billah bala nga jàng alquran neel yàlla mu téel la xaj bi ba pare seetaan ndax soo soo ko sàggatul ndax jàng alquran mooy déglu déglu yàlla saa yu ma bëggee yàlla neel saa boo bëggee déglu yàlla neel mu téel la ko mooy isa qarata alquran fastaiz billah ndax soo ko deful rek maanaam jàng ma du la jariñ dara léegi nag seytaane li tax mu nekk tem buy bu buy waxtaan yi mooy dama seetlu lenn loo xam ne ñépp a ko seetlu mooy nitu diine nitu diine léegi gëdd ba mu amoon Sénégal amatu constat bi nag ñépp ko def mooy problème bi xew ci réew mi amul nitu diine presque bu ci waxul ma wax leen ko tey kilifa diine yi laa ci jafag mais li ma xam ne léegi nitu diine nag kàddoom amee solo amatu ko solo mooy li fi nekk ci kër diine yépp wax na ko yépp mais ak réaction nag li nga xam ni moom jóge ci nguur gi euh, mbir mi kon nitu diine yi war nañu taxawaat seetlu daal yaa am problème te bés bu ñu demee ba diine amatu fi kàddu bu ñu demee ba diine amatul kàddu ci réew mi c'est catastrophique waaw man maa leen wax li leer laa leen wax loolu nag jar taxaw seetlu est-ce que problème bi ci nitu diine yi la bu dee ñoom la nañu toog defarwaat est-ce que problème bi ci askan wi la bu dee ñoom it nañ taxaw defarwaat mais y problème problème bi nag li tax ma ni seytaane moo ci moo ñu galgal ñun jullit yi waaw ndax bu njëkk ba bu njëkk ba maanaam euh, kilifa diine day am kàddu ci ëtt ba mu ne mais léegi boo seetee ëtt bu nekk kilifa diine dafa nekk kàddoom bu ko yëkkatee sax léegi waa ëtt ba ci boppam moo am ñu jug ci biir ëtt ba contre ko moom kon léegi nekkatul ci këru diine yi problème bi mais léegi kër gu diine bu nekk da nga am sa problème bopp léegi loolu nag mi ngi law rek imaam yi imaam ñu nekkatuñu benn kër diine yi nekkatuñu benn waxuma la kër diine yi seen bopp seen i biir loolu nag war nañ ci jot ay solution dara dul seetaane moo ñu galgal suñ ci solution nag fi mu fu ñu jëmee jàng mi kenn yàlla bu ñu fa yegg hmm. waaw ci ñëpp ñaan na yàlla na bu ñu fa yegg yàlla na ko fi yàlla jël waaw yàlla moo ko fi mën jël moo tax yàlla boo gisee ayatul kursi li ma koy faral di jàng bari mooy nañ koy faral di jàng lu bare bari xam nga am na benn kilifa bu waxoon ni seytaane yi waroon ci àdduna yu bari dañoo tax ñëw Sénégal damaa koy sës la ñëwoon na cheytaane yu bari góob gi cheytaane yu bari doxu nañ ñëw Sénégal waaw moo tax lii boo gën xeeb boo toll fala xëy naa si ayatul kursi day gën a bari ci sam jàng ndax seytaane bari na doole ci réew mu ëpp bu mu ëpp kenn ko yàlla tàggal la salaamaaleykum wa rahmatullah